الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهدني لي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi alladi jaalana xayra ummatin uxrijat linnaas wassalaatu wassalaam ala nabiyi alhuda warrahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi ihsanin ila yowmi ddin bismillahi rahmaani rahim barke cheikhul xadim jërëjëf Serigne Touba est-ce que Serigne Touba ci Serigne Touba borom Touba moroomantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki sénégalais yépp góor ak jigéen mag ndaw noo ngi nuyu ñépp di teg ci nuyoo bi nag kenn ku nekk di la fekk fa nga nekk ci sunu xel ak sunu xol ak sunu làmmiñ di la baalu àq di ñaan yàlla itam di ci fasaaleel ñépp kenn ku ne am na loo séq ak yàlla suñu boroom muy kenn ki di boroom asamaan ak suuf ki jurul kenn kenn juru ko boroom mbindeef yépp <clears throat> nu koy ñaan ci yërmandeem <clears throat> ak njéggalam kenn ku ne li nga séq ak moom mu jégal la ko di ko sant ci xewal yu bari yim na defal te moom wax na ko ci alquranul karim ni bu ngeen doon jéema a compter li ma leen defal ci ay bien ay xewal du ngeen xam nu mu toll waaye nag noonu ñi sukk jéblu jébbal suñu bopp Sëriñ Tuuba àdduna ak àllaaxira te jëm yàlla ji tax xam na ni xéwlu yëpp lañu war a sant waaye bi ci gën ci noonu war cee gën a sant mooy boole gim nu boole ak Serigne Touba kon boobu la ñuy gën a sante di ko ñaan itam ci ndigalam ndax moo ne ñaan leen ma ma may leen woo leen ma mu wuyu leen kon jëmmi ñaan yàlla gi doon na loo xam ni jëmmi ñaan yàlla gi doon na loo xam ni ak jaamu yàlla la loolu ñi am lu ñu yër xam nañ ko adduwaa muxul ibaada ñaan yàlla mooy yuurug jàmm yàlla ñaan mooy yuurug jaamu yàlla kon noo ngi koy ñaan ñaan nag la def ci sunu xemmemtif ak ndigalam Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke bi nekkal fii ci boppu lislaam bi yàlla yokk aw fanam may ko wér boole ci li ko neex yàggal ko fi loolu ba mu fi toogee ba léegi ba mu fi bis ba mu fi jëkkee toog nii leen ko daan ñaanal ba tey jii wax yéen ku yàgg dégg waxtaan yi dégg nga ko yàlla na bokk ci li koy neex yàlla yàggal ko fi mu eggalee mébétam ci liggéeyal lislaam ci toolu lislaam bi ñu dénk sëriñ bi te mu daje ci ngërëbu sëriñ bi nu ànd ko moom bu loolu jàllee noo ngi sant ñëpp di gërëm di dellu di ñaanal ñii yàlla teg ci bopp réew ñu jiite ko ci daahir yàlla kàttan na leen sàmm leen aar leen tawféexal leen ba yaakaar yi ñu am ñoom ak yaakaar yi nit ñi am mu bañ a tas bi xurmatal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam barki Cheikh Xadim tey nag gëj ngeen a dégg ñu yëkkati kàddu ndax su ma juumul fukki at ci ginnaaw ba léegi ñu yëkkati kàddu saa su nekk daan wax ak di alerte ak di joxe ay conseil ak di artu ci doxinu réew mi am na baat bu siiw ngeen daan dégg di ko wax ci télévision bi. ci Saxum Touba am te mooy am nii ba tey ci YouTube bi ñu ubbil ko chaîne bi muy Saxum Touba seetu murid di daan nañ wax naan le Sénégal est mal géré les Sénégalais sont mal protégés loolu ñu yàgg dégg waxtaan wi dégg nañ ko ci noonu nu nekk ca nekk ca nekk ca ba lii am di am nu di ci xalaat di ci wax di ci dox ni ñëpp ba suñu boroom defal nu tawféexi tey changement bi am loolu nag bu ngeen gisee ngeen toog ab diir léeg-léeg mu xaw a yàgg du ngeen lu dégg bu njëkk mënuñu woon a toog noonu rek di gis yooyu te duñ ci wax ak li ñu xalaat ni moo koy saafara ak lii war a doon résistance léegi nag ginnaaw loola jeex na nag ah léegi eh, li ñuy xalaat yàlla xamal nu ko wala nu yéene ko wala nu xam ko war koo participer du doon lu ñuy man a wax ci média yi rek muy dem noonu déedéet ña ko war a dégg rek ñoo koy dégg nag ngir mu doon njariñ bokkul la ba nga xamante ni bii li ñu doon wax ñëpp dañ ko war a dégg ngir nu bokk xeex bi ànd ko léegi xalaat yi nu am ni ko ñëpp amee ak yéene yi loolu dootu doon rek loo xam da koy wax ci média yi muy jàll loolu du doon ay conseil kon waaye nag léeg-léeg itam kàddu du mën a bañ a jóg te li ko waral mooy lii may bëgg wax ci kanam bu ngeen teewloo li waral sama kàddu yi tey bala ma ciy dikk nag dinaa sant ñi nekk conseil constitutionnel ndax damaa defoon ñaari video ci ginnaaw avant élection yi ak après élection avant élection yi wax ni seen jéego yii de ngeen def waa conseil constitutionnel le sept sage rafet na lool ñëpp bëgg nañ ci waaye man de bale ma leen a félicité bale ma leen ndokkeel ñu dem ba ci cëppaandaw ga li ngeen tàmbali ngeen eggale ko mooy élection yu jeex am demee ni mu war a demee génn rek proclamer résultat yi dara bañ ci am ci lu lu ñuy euh, jàmbat. loolee nag am na kon nag tey jii nag mën nañ ni jërë ngeen jëf ñëpp ngi leen di sant wala man maa ngi sant ba noppi itam ñu ngi leen di ñaanal waaye nag engagement bi gën a yokk ci gën a ñoŋal li nga xam ni. moom mooy liy doxal mbir yi ni mu war a demee waa conseil constitutionnel kon gàcce ngalaama bu loolu jàllee <clears throat> ngeen baal ma euh, ñu dikk nag ci loo xam ni waxoon naa ko ba tey itam ne woon président bi duma ko félicité félicitation dafa am lu ko tax a jóg la may def duma ci daj mooy ku koy wax da ko war a ñaanal ngir li nga xam ne moom la sumb Sénégal sumb ko mu ne ci kanam mu sotti muy ndam ñëpp teg ci seen bët bu boobaa la ñuy wax félicitation ndokkule jërëjëf fi mu toll ak ñaan la soxla waaye félicitation mënagoo ko wax koo xam ni day soog a tàmbali waaw am te kon peuple Sénégal ñoom am nañ méritu félicitation. ndax lañ doon def résultat bi moo indi lii ndax démocratie wu fi lii fi am tey changement bi démocratie indiwu fi ndax bu fekkoon ne démocratie la deret bu tuuru dara kenn du fi yàqulu dara kon at yi yëpp dana nekk ci jàmm ak salaam def élection génn waaye li fi faatu ci bakkan li fi yàqul ci nit ak réew mi angoisse bi ñu doon dund psychose li ñu nekkoon nga xam ne stress bi ñu doon dund loolu yëpp manque de démocratie moo ko indi woon li fi am tey résistance moo ko indi ak peuple bu soxla boppam ndax ki fi nekkoon man xawma li des ci dundam nan lay tëdd di nelaw ak fu mu mën a nekk nan lay tëdd di nelaw damay toog di xalaat boo xoolee dégâts yi mu fi def njaaxum yi ak bañ gi mu bañ Sénégal ci saax saaxe alal yi ak ñi mu jëflanteel ci bitim réew ci ay yëf yoo xam ne ay contrat la ak ginnaaw bi muy bëgg a dem rek. giraawale yi mu fi def nga xam boobu fukki fan sax li ko fi dese mëtu ko man as gor su defee loolu nu muy mën a nelawe su des gor su des gor nu muy mën a nelawe fu mu tëdd dina ma jaaxal bañum réew itam mënut a weesu di di génn sam réew di jéem a fakkastal ña fay toog ak di jëli décision yi décret waaye la ko jiitu nag nga def lu ko gën a garaaw fop loolu duma ma ci sori ndax day day yàq suñu temps xam naa daal lu ñi fi nekk lu ñu war a bàyyiwaat xel la ndax mbir yooyu moom wërte nax saay noonu rek bokk na ci contrat bi peuple bi signé woon ak ñi fi nekk mooy loolu ak kum ci mën a doon ndax du nit lañ ko defoon waaye askanu lëmm lañ ko def tey ay bakkan nga tëdd am na ñoo xam ne ay laago lañu ainsi de suite ainsi de suite léegi nag ngeen baal ma li indi waxtaan wi mooy euh, dafa am benn audio boo xam ne dañ ma ko yónnee démb ndax lu bari yu mel noonu dama koy jot ma dégg ko déglu ko ba mu jeex ma xam ni kii wax lii jigéen la soxna si wax lii pesewul poids diisul kàddoom du loo xam ni day engagé fa mu bokk ñëpp engagé wu leen du lu am solo ndax engagé wul communauté ba mu bokk moom itam xam naa ni background am des na amul high level au niveau waa dese na ko am te kon nee na da koy dugal ci benn amical des femmes catholiques yu nekk ku ñuy wax daba xam naa ña nga cay waxtaan ci biir waaye jombul sax ni ma xamee euh, chrétiens yi buñ ko déggee ci groupe ba wala ñeneen dinañ ko ni yow de lii jër woon yëkkati kàddu nag ndax ñoom ay borom bi lañ nit ñu maandu lañ ñu honnête lañ kon lii mu yëkkati ak lii muy wax danaa ko teg ngeen dégg ko yéen ñëpp ñëpp ñëpp ngeen dégg ko ma soog a ñëw nag indi ci ay leeral ci li wax ay leeral ci li wax waaye soxna si daal ojo bii dégg nañ ko ànd déglu ngeen dégg li wax ci président Bachirou jomaa Diakhar Faye bi muy wax ba egg ci ni dinañ créer benn kuréel gu nekk ci biir présidence banqaas boo xam ni day saytu lu jëm ci diine waaye itam day saytuwaale lu jëm ci ñi diplômé ci wàllu arab am diplômé arab moom nag dafa am am bu mu def moom soxna si mënuma cee sori damay bàyyi ngeen déglu ko ba noppi bu ngeen ko dégloo ngeen déglu li nga xam ne leer yi ma ciy indi kon nan boo ko déglu ko moom soxna soosu ak audio boobu Alors Daba, ma fille, comment vas-tu? Ça gis nga li ma la yónnee noonu sunu communauté euh, amicale catholique yi ci lañ ko dugal xam nga déglu nga uh, Jomaay conseil des ministres déglu nga ko euh, wax na ci uh, kii. ci arabe arabophonie les arabisants ñi nga xam dañuy lang jàng lang arabe xam ñooñu musulman lañu buñ ko jàngee ba pare léegi am na direction buñ ñu leen di ubbil structure bu ñu leen di ubbil foofu ci présidence nga xam ni ñoom bu ñu paree ak seen diplôme dañ leen di caser jox leen liggéey wax na ci ñoom ci arab yi rek rek rek la wax les quand on parle d'arabe on parle de musulman mais benn yoon relatewul côté chrétien murit bi ci arab ba lay jàng euh, tijaan bi ci arab ba la euh, laayee ni partout ñoom ala comme moom bu waxee ci arab yi yem ca rek déjà mi ngi def di favoritisme pour les musulmans et pendant ce temps on est dans un pays laïque kon ñun catholiques yi fier d'être catholique ana sunu place kon ci élection jomaay bi xam nga ba mu waxee côté arabe arabe lang la boo xam ne ñoom dañ koy utiliser ci seen diine comme chrétien ni doon utiliser latin grec donc war na laalaale itam con euh, euh, euh, kii catholique yi ni pour le nos nos frères wala nos nos parents chrétiens la ñun itam dinañ def lii pour ñoom nangam ak nangam mais waxu ci waxu ci voilà dem na Touba ba tey demul seeti monseigneur waaw te ñun taxawaay kat ñun chrétien taxawaay bi ñu taxaw noonu di ko xeexle euh, ci dialogue boobu Macky Sall bi il y le chrétien qui a osé dire la vérité en faveur de Ousmane Sonko et de Diomaye moo tax gis nga man damay suivre actualité ba pare nag <coughs> boo dégloo bu ñu waxee di nga am loo siy tirer looy comprendre euh, nii mu bëgg commencer nii ça va fausser beaucoup de choses parce que nu les chrétiens aussi on se laissera pas faire moi je suis chrétienne catholique ma dama dem woteel ko ay catholique yi catholique yi musulman yi musulman ñoo ko kon bu tuddee waa arabisant yi rek war na tudd côté chrétien moom euh, il a il a il a il a mal démarré ni mu bëgg démarré nii euh, c'est un faux pas il faut que mu rectifier ko sinon opposition am dana bare to torop torop ay chrétien parce que on est là on n'est pas majoritaire on est minoritaire mais on est là on est des Sénégalais pur sang comme moom Diomaye comme yow comme man pour keneen ak keneen ak keneen mais tu peux pas dans un pays laïque parler pour les musulmans et ne pas parler pour les chrétiens balaa ngay dem bay yegg Touba euh, monseigneur est là à à deux pas de de de de chez toi demuloo fa nga def d'une pierre deux coups dem Touba jaare noonu dem euh, euh, Tiwaawoon boo ñëwee le lendemain da nga war a dem fii ci catholique yi ñun nag nous les catholiques on se laisse pas faire de Diomaye ni mu domaare nii nii nii Euh, je sais pas qui le conseille ni nga Sonko mooy diriger ci suuf nangam ak nangam mais du lu ñu yaakaaroon ci ñoom de man dama commencé am déception c'est vrai c'est pas par rapport ak yor dëkk bi mais division bi entre le chrétien le catholique euh, bu rectifié wul ça va creuser loolu la moo tax ma yónnee la kii bi nga liir ko man dama leen di topp de dama leen di topp tous les jours. waa ginnaaw bu ngeen ko déggee. soxna si dafa daanu jël bu rëy rëy rëy ndax moom dafa jaxase dafa jaawale làkku arab ak diine lislaam dëgg la diine lislaam ci ki ko yàlla wàcce ab arab la arab lay làkk waaye nag diine tënkuwul ci làkk cent pour cent am te munoo cee bokk dëgg-dëgg te déggoo ko walla jàngoo ko ngir am loo xam ni di ko ci mën a jëfandikoo mais daal li am solo ci cadre fii muy waxee daal moom soxna si président Bassirou Diomaye Faye bi muy wax xelam sax fëlërtewul lii soxna si wax te loolu mën naa koo firndeel mooy soxna si dafa wax ni dafa wax te tuddul chrétien yi dafa wax ba noppi ñi bëgg a jàppale recaser leen mooy ñi am diplôme arabe euh, waa léegi soxna si li ma laaj mooy yow nee nga képp koo xam ne jàng na arabe rek automatiquement jullit la loolu moom duma ci sori Sénégal gi nga nekk rek communauté libanaise bi fi nekk buñ dee cent jàppal ni quarante yi ay catholique lañ te ay arabe lañ pur sang communauté libanaise bi na fii arab lañ di làkk arab te li ci ëpp ay catholique lañ donc foofu soriwuñ fi fi ngay waxee nag ñi tax ñuy wax ñoom ñu diplômé ci arab ci Sénégal moom ay jullit lañ waaye nekk gi ñu nekk jullit taxul woon président bi di wax président bi ñu ngi doon wax ci cadre domaine professionnel domaine professionnel la doon wax ci wàllu liggéey ak ku jàng ba am ay ijaasa foo ko mën a jànge dip sénégalais am àq ci ñu recasé la nga nekk ci ñiy jàng arab nag lii amalgame bi wala li li li li li li sénégalais yi dal sénégalais yi métti na trop ñu ci bari jàpp nañ ni suñ ne nit jàng na arab rek wala alquran rek wala diplôme lii la rek jàpp nañ ni daa war a jiite ca jumaa ji rek loo rek lañ la ñuy jàng ci arab ñoom jàpp nañ ni langue arab li ñu ciy jàng rek mooy jiite ci jumaa ji takkub sëy ngénte nang tudd doom déedéet bu leen fàtte ne européens yi bari na xam-xam yu ñu yor yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci arab yi loolu du ma ci sore xam ngeen ko biñ colonisé adduna bépp musulman yi ba ñëw Espagne Andalus gis ngeen xam-xam yu bari européens yi ñu ngi ko jëlee ci arab yi donc li ma bëgg indi fii foofu leeral mooy soxna si yaa ngi mel ne yow ñëpp ngeen xam ni làkku arab xam-xam bi ñu jàng ca sorbon di ko jàng ca Manhattan di ko jàng ca Boston di ko jàng ca Berlin di ko jàng ca. Angleterre xam-xam boobu la ñuy jàng ci wi arab yi ci arab nag lañ koy jànge Égypte doy na ci leeral Arabie saoudite gi ma gi nga xam ne nekkoon naa fa mënees na ko ci jël exemple kon bu ñu waxee loolu mooy président dafa gis ni arabophone yi wala ñuy tuddee arabisant wala arabophone ñi jàng arab am diplôme arab dañoo yàgg nekk victime ci jamonoy Senghor ba léegi certes am na ci ay benn benn yu ñu daan jël ñi nekk ambassadeur ñi kii fii ay benn benn mais boo xoolee globalement li am ay diplôme jóge ci yu arab yi ay junni junni Sénégal lañ am droit ni keneen ni ki génn Sorbonne ni mu amee droit ni la ki génn ci réewi arab yi amee droit ci am liggéey lan la nekk doon obstacle bi mooy langue France bi nga xam ne làkku france bi nga xam mooy officiel Sénégal ñu di ko jëfandikoo lii rek moo doon différence bi ñu waroon ko réparer bu yàgg yàgg nag. réparé wuñ ko réparé wuñ ko réparé wuñ ko ba projet bii ñëw ñu xalaataale ci ne kon victime yooyu victime lañ injustice boobu nañ ko réparé foofu la ñu wax ne ñi nga xam ne dañoo diplôme ci arab danañ leen jël évaluer seen diplôme recaser leen ñu yem ak ak ñi nga xam ne ñoo jàng français ak fu ñu ko mën a jànge ma jox la ci benn exemple fi ñu toll yéen xamu leen ni médecine euh, géographie loo yaakaar xam-xam boo yaakaar rek xeetu science science arabe am man mii di wax ak yi nii dinaa la jox exemple soxna si bi ma jàngee li ma war a jàng ci diine ba noppi ci Touba gi alxuraan ak lépp jàngi naa bitim réew def naa Arabie Saoudite onze ans l'université le plus moderne du Golfe université Roi Saoud fa jàngee jànge ba am sama maîtrise en communication de masse et relations publiques mass communication and public relations ci laa am sama maîtrise pourtant boo ma gisoon fi mu toll nga naan xoolal sëñ bee nangam nangam kee nangam nangam rek ngay wax maag junni nag yu mel ni man ñii am nañ ci agronomie diplôme am na ci ñoo xam ne ay médecin lañ am na ci ñoo xam ne ay ingénieur lañ loo xam ne ci arab lañ ko jàng ñooñu nag bu ñu mosaan ñibbisi nag làkk bi ñu ko jàngee tax na kenn du leen intégré ma jox la beneen exemple. boo demee ci wetu présidence fi jàkkaarloo présidence sës rëkk ak building amoon na ministère bu ñuy wax ministère de la modernisation de l' état Abdou ci ci bi mu fi at at yu mujj yi mu fi nekk moo ko créé woon rakkam ju mu bokkal ndey ak Baye Maguette Diouf moo doon ministre bi moom lañ faloon ministre de la modernisation de l' man sama diplôme bi ma am fa lañ ko évaluer def ko hiérarchie A3 bien que sax ëpp na ko par rapport ak la nga na ci biir. foofu lañ doon évaluer diplôme bi ci jamono yooyu ministère boobu dafa tas amatul dama ni sax président Diomaye lii ñuy bëgg a xalaat ci biir présidence bu ñu ko mënoon yokk ndax diine toll na foo xam ne Sénégal mbir moom toll na foo xam ne Sénégal ah, ministère des affaires religieuses tout ba noppi seet nag ex expérience ba amoon ca ministère de la modernisation de l'État boobee ñi ci nekkoon même bu ñu retraité ñu gis leen. concerté leen pour lii ñu bëgg a def muy intégrer les diplômés arab ci biir fonction publique bi yaakaar naa ne du am foofu dina am benn expérience bu fa am boo xam ni ku fa dem ña fa nekkoon dinañ ci mën a participer. muy ministère de la modernisation de l'état bi fi nekkoon à l'époque jamono Abdou Diouf te Maguette Diouf jiite woon ko fa lañu doon évaluer diplôme yi soo ñëwee soxna si loolu li tax ma doon ko wax du dara xëy rek mooy won la ni am na ñoo xam ne ci biir Sénégal fi ñu toll nii ay agronome lañ. am na ci nag ay benn benn yu ñu jël benn benn la wax benn benn yoo xam ne jël nañ leen parce que xawoon nañoo demoon nañ ba làkku français yi ñu am luñ ci maîtriser su ko defee ñu mën leen a mais ku masaan ñëw diplôme boo mën a yor bu fekkoon da ngay defar avion sax mën a defar avion sax dañ lay yóbbu nga jàngale ji école yi rek jàngale arab langue arab rek ngay jàngale ji soxna si kon jàng langue arab rek bul dégg ñu ni dàngu arab rek nga di diine la déedéet loolu erreur mun koo wees te yow ci cadre boobu nga waxee te président waxewul ci cadre boobu ni nga ko bëgg a indi xaw naa doy waar trop ndax da nga bëgg a indi maanaam diggante jullit chrétien déedéet loolu c'est révolu lu weesu lu jàll bu yàgg la suñu borom musal nañu ci gis-gis bi rek dafa gàtt lool nga baal ma xam naa soxna Daba mi ngay wax ak ñi ko waxal moom bu ñu xolaatee mbir mi dañ leen lii moom juum nga ci di ko jàngate beneen bi topp nee nga. te même président juma bu fekkoonte ni bi dafa tudd alxuraan ci biir daaray alxuraan sax ci direction boobu ñuy wax dañ koy créé bu doon daaray alxuraan dañ leen dimbali wax na ko ci biir mais daaray alxuraan bu leen jàpp boo jàngee alxuraan rek dafa am ñoo xam ne jël alxuraan def ko métier profession. ni keneen jëlee leen def ko profession ñooñu noonu lañ defee seen alxuraan jàngale ko ak jàng ko di profession di sénégalais nag yu mat sëkk dara manqué wu ci ñoom ak ji nga am yow ma am ko keneen am ko Sénégal ñoom ñu am ko. ni ñuy war a toppatoo école publique ñu war a leen a toppatoo noonu ndax dañuy fay impot di sénégalais bokk ci réew mi même bu dee dañu jàngale alxuraan dañoo am ay droit léegi nag bu ni da nga ni loolu bu fekkonte ah, ba gis ni am na daara yoo xam dañu jàngale bible ñu ni daara bible di nekk Kër Massar wala daara bible di nekk fee wér na ma ni li ñuy jox daara alxuraan yi dañ ko jox daara bible nga xam ni bible dong lañ fay jàngale bu fa amoon it li ñuy defal daaray alxuraan rek lañ leen di defal ak li ak ak lu bees lii xew rek laa wax lu bees lii xew te ñëpp xam nañ réew mi ni mu tëddee ak subvention yi ca jamonoy colon ak yi fi am yëpp yoo xam ne ay contrat ngi fi ak yoo xam ne ay faveur la te xam nañ ko ci wàllu suuf ak wàllu leneen ak leneen ak leneen te kenn mësu cee wax ni lii war a laa kon égalité de chances ñu yemale ñëpp kenn ku ne da war a am nga am ko bu dee dëkk bi dafa am junni nit. ñu jox ko lu tolloog junni nit bu fekkee dëkk bi dafa am téeméeri nit ñu jox ko lu tolloog téeméeri nit kon soxna si fi ngay waxe président waxewul foofu ñaareel ba yaakaar naa jox gëdd communauté chrétienne mënut a weesu xam nga ministre de l' intérieur ban ordre protocolaire la am ci état bi ministre de l' intérieur maqaama mi ministre des affaires étrangères am ci bitim réew moom la maqaama mu ko raw la ministre de am ci biir réew mi daanaka mooy lépp te xëy na sax lii ñuy bëgg a créer moo tax waaye lu ko jiitu naka jëkk ministre de l'intérieur lu jëm ci mbirum culte di diine loxoom dana ci dugg te bii tam loxoom du ci génn ndax yi ñu fiy organise ci diine yëpp fu mu jaar loxoom dugg ci kan lañ ko jox général bu jàmbaare Jean Baptiste Tine di chrétien xanaa soxna si kon keroog ba muy dem Touba ku mu àndal moom la àndal ba muy dem Tivaouane ainsi de suite ainsi kon nag teel ngaa wax lool yaakaar naa lu toll ministre de l'intérieur ku ko jël jox ko ku bokk ci communauté boobu bàyyi nga leen xel te boo delloo ci discours euh, indépendance bi dellu ci nga xool déglu président bi muy wax li mu wax ci mbirum ñi nekk am diine ci réew mi am maa fee jëkk dem ak jëkk dem foofu nag yooyu moom c'est des balivernes jëkk naa dem fee jëkk dem fee loolu vraiment duñ ci sori waaw fii la waroon jëkk dem ak war naa dem fee ba mu fa demee loolu nag l'essentiel wax ci li am solo mu ëpp solo te li ñàkk solo nga bañ bañ cee wax ku ne xam na li war a am kon loolu bëggoon nañ ko wax li ci des nag mooy jaawale gi nga jaawale diine ak làkku arab loolu na ci Sénégal yu bari bàyyi xel na ci sénégalais yu bari bàyyi xel ñaareel ba itam eh, bëggoon naa wax ni tey ñi nga xam dañoo jàng ci wàllu francais ñàkk guñ ñàkk xam ak teqat legoogu différencier bari na ñoo xam dañoo assimile civilisation occidentale ci njàng meeg col geeg wax ji boo leen noonu tey déqale sax fa la fa la Mamour Anta nekk wala fa la Lat Joor nekk héros national ñu nuy dàqalee dàqalee ba leen ne poroxaan ñu poxoxaan duñ wax duñ bëgg a wax war na er yi poxoxaan poroxaan ñun la poxoxoon waaw nu papillon karawaat nangam nangam bref noonu ñu amee complexe nag lenn du ñëpp de noonu ñu amee complex ñenn ñooñu sénégalais yi ndax jàng gi jàng français ak assimilé civilisation occidentale nii la lenn ci sénégalais yi jàng arab amee complexe yenn arab yi su leen waxee ñun la Ibn Taymiya nangam nangam ah, yooyu loolu day loo xam ni soo leen waxee ñun la ibnu taymiya di di di ni ñenn ñi ñenn ñi melal lu xeeb seen askan wala seen der bu ñuul wala seen seen civilisation wala seen culture ba ma dégg ci biir dem rek kuy wax ci wàllu sol gi président di sol ak ni mu doon doxee <laughs> ree jàpp ma ba ci wax ji ngay wax ni am na ko ma dégg ci télévision démb rek mu ci posé question naan li ko jaaxal mooy direction des affaires religieuses te direction des affaires religieuses bu ñu ko defoon biir présidence wala ñu def ko ministère mais néew ñu direction des affaires religieuses musulmans <laughs> wax ñu loolu des affaires religieuses tout la ñu wax mais loolu bu ñu ko waxee nag mooy diine yëpp ci bokk la ca chrétien war am danañ ko ci am la ca jullit war a am danañ ko ci am kenn distingué wul dañ ne directeur direction des affaires religieuses wala département moo xam nu muy tudd ci présidence wala ministère wala leneen te loolu amagul ba nga gis ni lii lu wuteeg loolu am na. kon da te teeyoon baax na ci am na ku ma dégg nag ci télévision muy wax démb dama reer fu ma jàpp ndax dama yaakaaroon ni background war naa wees foofu mooy ñoom ñu ci bëri xamuñu histoire Sénégal arabisants yi arabophone yi dañoo ne yàgg nekk victime ginnaaw bi ñu jàngee ba noppi kenn dàqu leen jàng ñu am ay diplôme ci xeetu xam-xam yëpp ñu am ci diplôme xeet bu la yaakaar nag surtout agronomie am na koo xam ne Égypte la génne sept ans ngi ci biir réew bokk na ci ñi gën a man ñi daq ak mbirum mbay agronomie ba léegi mi fu ne yóbbu la fa dossier mi mi ngi wëndeelu xëy na balaa yàgg la dina jeex lu mel noonu lañu la wax ki doon laaj nag ni lu tax ñu ñu ñu tudd arab diplômé arabe boole ko ci li ñuy li ñuy recasé day mel ni kon dañ leen na dañ leen a ségrégation day am ndax kon ñoom la ñuy wutal liggéey bàyyi ci déedéet dañuy réparer benn injustice bu amoon au contraire ñoom des années pendant vingt ans trente ans ci ginnaaw ñi ngi ñi ngi ñi ay victimes lañ ñu marginaliser leen ñu nekk fële kenn boolewu leen ci malgré ñoom kenn dàqu leen jàng te xam-xam bi ñeneen ñi jàng lañ jàng foofu la nekk moo tax mu tudd ni les diplômés arabes bu ko defee nag ñeneen ñi naan lu tax ñu jël pourquoi ñu am na yeneen diplôme mais ñi nga xam ne ñoo nag fonction publique mat nañ téeméeri junni bi ci ban diplôme la ci français ñee nag boo leen xoolee mutuñu sax mille mille personnes yoo xam ne ngi liggéey te ay diplôme lañ moo tax bi mu posé question bu télévision bi dama ne kii est-ce que c'est kii war na nee na direction des affaires religieuses tiitalu ko jaaxalu ko loolu normal la mais liñ ci boole les diplômés arabes ñu recasé leen ñooñu dañoo nekkoon ci injustice muy réparer injustice boobu bëgg leen a war ni leen loolu dafa war a jeex mais le fait que nee na dañ ko def tudd na président tudd diplômé arabe rek ak nangam rek am ñu daal di <laughs> funki fi saasi c'est dommage avec la vision yenn vision sénégalaise ak ñenn ñi ci yenn plateau yi bala ngeen langue bi nga xool bu baax a baax li ngay wax waaw nan la segre nan lañuy ñuy jëlee ay diplôme d'ailleurs diplôme arabe yi boo leen ak ñi jàng français ñee téeméeri junni lañ ñii rek ay ay junni ay quelques junni lañ kon kay favoritisme amu fi ségrégation amu fi wutal ki liggéey bàyyi kii amu fi au contraire am na ñoo xam ne bu ñu leen jëloon sax tey jii trois ans la ñuy liggéey daal di retraité ndax boobu ba léegi ñu ci xam-xam yi ñu am te liggéey boo leen jëloon tey ji seen xam-xam li muy bari bari bu ñu leen yokkalul quatre ans la ñuy am te boobu ba léegi xeetu xam-xam boo ko mu ngi loolu laa li ma doon wax léegi ci complexe gi rek ci entre ñi jàngi français te am complexe tubaab yi ak occidental ñi ko am ci wàllu arab dëkk di sénégalais arab ba ñëw dem ci réew arab ñëw nga xam ni foofu dama ciy leeral tuuti rek mës naa ko wax ay yoon yoon ni leen mbooleem ku jàngi woon arab ba ñëw di dingat mag ñi fi nekk walla nga leen di contre wala nga naan dañu nekk bokkaale wala li nekk du diine shirk la nangam nangam la ñi koy wax ñëpp waxuma seeni maam de waaye mbooleem ko wax ci Sénégal nii baayam bi ko jur ci loolu la juddu ci tariixa la bokkoon moom mi koy wax keroog bi ñuy jëli way juróom kër bi ñuy jëli way juróom jigéen sëy ba nañ ko fase ci tari ci tariixa lañ ko de ci tariixa la jaare baayam amoon na wasila te baayam boobe itam mënoon na ko def loo leneen waaye baayam bu moo ko dugal ci daara moo ko saytu ba mu doon li mu doon léegi nag bu fekkee da bëgg ni kon li ñu nekkee léegi shirk la loolu bokkaale yàlla war a nangam kon jàppal ni sëy ba bañ ko fasee kon dafa araam te bu araamee lu ci juddu lay araam kon sëy ba ginnaaw ñi ñi waxuma la maam yi waaye ay baay rek ku fi nekk di wax rek sa way juru sa way juru góor am na fu mbokk am na tarixam bu mbokk bokk ba ñuy wuti soxna sa di ko jëli ak ba ñuy takk sëy ba ñu ko def waa tarixa lañ ay suufi ay ay suuf ay suufi lañ ca jàkka ja guróog ak lépp bu fekkee nag léegi liñ def lépp ñoom baaxul bokkaal la kon nañ ko defe woon baaxul te lu baaxul araam lay doon te booba lu ci lu ci jóge day araam noonu rek la lu simple la kooku jëlul sax dugg ci téere yu bari di di wër ñaareel ba sa waajur woowu ba ba ca ba ca nit juddoo ca loolee waajur wa mënoon na laa def loo ji leneen moo la toppatoo di la saytu di la saytu di la dugal alxuraan di la jàngal ba nga egg fi nga egg léegi nag complexe yi de gi daal ñenn ñi demoon France ak ñi demoon Europe du ñëpp de vingt pour cent wala trente pour cent ci ñi mu dal ba nga xam boo waxee ñoom poroxaan ñu ne poxoxaan nangam nangam nu papillon assimilé dugg fii génn fi loolu ni mu dalee arabisant yooyu wala arabophone yan yan arabophone yi. boo waxee ñu la Ibnu Taymiya la nangam nangam loolu nañ dellu ginnaaw xool bu baax rek seen jur yooyu bu fekkee ne faatu nañ kon léegi te dund ci loolu lool li ñuy dingat di ko contre seen jur ci lañ dund soixante-dix ans quatre-vingts faatu nañu léegi seen way jur ci la lañ nekkoon ginnaaw ñoom dañ doon bokkaale ci bokkaale la ci lañ juddu ci lañ def lépp kon léegi seen way jur yooyu kon ak ci ban situation lañ nekk ni fu fi ñu toll nii ci barsàq waaw ban situation munu mun leen ma ni cent ans yi yëpp ñi fi nekkoon ci lu baax ba indi fi lu baax lépp ci mbokkaale lañ nekkoon kon liñ doon def lépp c'est futi lépp dafa araam kon lépp araam na jeex na ca ña koy wax laa wax nag ca ña ko gëm di ko wax ca ne koy gëm laa wax di ko wax <laughs> waxuma ni loolu fa dama ne ci ñi ko gëm di ko wax ak ñi ñi nga xam dañuy jéem a diingat mag ñi ak di jéem a tarixa ak di waaw loo wax ñu la bokkaale ku ci nekk daal yéen maa ngi leen di wax ni sénégalais fu ngeen déggati koy wax laaj leen ko ni ko sa way jur bi muy jëli way jur bu jigéen sa way jur bu jigéen moom ci tarixa sàggam la bokk keroog bañ demee ca jàkka ja bañ koy fas nañ ko fase kon dafa araam bu ñuy tudd doom ci kon dafa araam ba nga gane àdduna lépp dafa araam kon kon yow loo doon yow léegi ban statut ngay am yow léegi kon waxuma ni waxuma kenn nag waaye képp ku jàpp ni yow laay waxal ci sama wax ji jàppal ni yow laay waxal waaye waxuma kenn nag waaye ku leen ko xam daal laaj leen ko ne yow de sa way jur ci tarixa sax nga bokk sa way juru jigéen bañ koy jëli waa tarixaa ko defar waa suuf waa suuf yi waa suuf yi ñoo ko takk ñoo ko indi ba nga juddoo ñoo la tudd ñoo la ñoo la ñoo la ñoo la kon loolu yëpp dañu doon def lépp aram na kon yow léegi ban statut ngay am yow léegi ban statut ngay am léegi yow yow mi wax loolu sa jur yi tam maanaam ku ci de bu ci kenn am naqar mbooleem ku ngeen dégg mooy digat ak di wax yooyu bàyyam bi ko jur la jëkk a tàmpali ci kawam li muy wax lépp ci baayam lay dellu bu fekkee ni baayam bi mu dellu ci maamam mboolem ku ngeen dégg di dingat mag ñi rek jàppal ne mag ñi muy wax ci baayam bi ko jur la jëkk a tàmbalee dingat moom la jëkk jëkk a wax lu bon noonu lay demee de ndax amul kenn ku ma taxaw ni sama baay bokkul woon ci tarixa sàngam amul te ci la doon dund te loolu mooy alxuraan ak sunna di lu sel ba lu baax ni lépp am ci ku ko bëgg dindi rek bala nga ni muy wax sëñ jiw sàngam ne ko yow koy ba ko li ngay wax seen jur sa sa way jur yu la jur moom ko ko jëkk a wax kuy wax kuy wax way juróom kuy wax way juróom loolu nag du jar di ko di di ko topp jeex na loolu entre parenthèse rek bi ma dugal ci waxtaan dama ko doon wax benn waaye man ko gis nga jihaad dafa am jihaadu nafs dafa am jihaadu jism ruuxaani lépp sëñ bi nag boo gisee mbiram xaw a mbiram yéeme lool ku tedd ki Ahmadul Xadim mooy xeetu jihaad yëpp lu def moom jihaad ilmi jihaad nafsi jihaad jihaad xeetu jihaad bu rek waaw jàkkaarloog ñoom ci physiquement jihaad intellectuel bind téere jihaad xeetu jihaad yépp la dàmbale def ko loolu da ci dafay dafay flirte sama kii rek mais yeneen dinaa ci ci yeneen waxtaan yu gën a yaatu yi insha allah rabbi comme dañoo gëj a del gëj a déggante rek mën naa dellu si leeral loolu soxna soosu xamal la ne loolu ngay wax lu jar a teg fi suuf la te xam naa ni ña ngi ko bokkal sax gëm naa ni bu ñu la déggee danañ la ni soxna si lii moom jëru woon wax ndax demagul fenn te gisugoo ñu defal kii lii bàyyi kii lii damaa wax da nga comprendre gul projet bi xam naa comprendre goo de waaw comprendre goo ko de te it ni nga ni nga ni nga ni nga réagir du réaction boo xam ne high level la ku am haut niveau non niveau bi xaw na wàcc na loolu daal wàcc yóbbul nag foofu ca ndaje moom mi ñu ngi koy waxtaanee dina fa am koo xam ne dina recadrer xam ne juumte la mu delloo si waaw loolu mun cee ñàkk waaye arabisants yi daal wala arabophone yi daal buñ ne dañuy def direction de affaires religieuses ci présidence wala ministère des affaires lu mën a doon loolu diine yépp a ci bokk ku ci nekk la cay sa àq foofu nag différence bi leen rek mos naa ko bind ci benn journal Touba magazine ne leen nag léegi nit ñi nañ nañ nañ nañ distingué Touba tey mooy deuxième ville du Sénégal suñ jëloon tey Dakar def fa dix milliards il faut obligatoirement dinañ def Touba six milliards beneen dëkk boo xam ne tolloowul ak Touba un milliard lañ fay mën a def wala deux milliards mais munoon nit ñëpp dañoo bokk diine rek kenn ku ci nekk li ma jox ki déedéet selon les nombres nombre bi la maanaam nombre bi la ñuy calculer population bi ndax bu fekkee nag kon am na am na ñoo xañ ñoo xam ne li ñu naan bopp nangam. bu ñu doon joxe jiw ñu bopp bu ne dina am fukki kilo wala nangam wala dina am bërigo wala nangam sénégalais bu ne boo xasee judd rek di sénégalais rek yaa lante woon nga am benn fan yaa ak sénégalais yëpp a yam donc séddale bi pour mu am équitabilité du question kër euh, diine yëpp déedéet kër gu nekk nan nombre ba toll la ñuy xool waxuñu daraja jaag déedéet mais nombre ba na mu toll population ba ci la ñuy fonctionner ba jox loola mi ngi mel ni lu tax nga di ko jox dix milliards. te doo ko jox te te te doo ko jox te doo ko jox par exemple Mbour parce que bokkuñu doo ko jox Fatick parce que bokkuñu popula bokkuñu nombre de population voilà loolu itam bu ëllëgee bu ñu tàmbalee liggéey bii na ko nit ñi bàyyi xel xam ni tey jii dëkk bu nekk bu ñu fa ñëwee lu ñu fa indi daa tolloog la nga xam moo fa nekk ci mbooloom sénégalais lu mat a bàyyi xel mas naa ko bind bu yàgg foofu yëpp xewagul ñu ci dellusiwaat incha allah rabbi kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. incha allah rabbi loolu mooy Saxum Touba seetu murit yi dellu si waatoon rek doon indi leeral ci audio boobu mu dégg ak itam gën a indi ay précision hmm, ci li nga xam ni moom la soxna si wax ñu xam ni ñi jàngi woon ci réewi arab yi xeetu xam-xam moo ne jàng nañ ko wax naa leen man mii ci communication am na ñeneen ñoo xam ne ci agronomie am na ñoo xam ne ci santé am na ñoo xam ne ci ingénierie am na ñoo xam ne ku ne am xeetu diplôme mu ne am nañ ko te balaa yàgg léegi bu ñu ko tàmbalee di ngeen gis compétence yu ñu ndax boole nañ ñaar jàng diine xam diine wëlbatiku jàng li nga xam mooy xam-xamu àdduna boole ci it ab yoo xam jaar nañ ci daara man nitu daara dafa doy war da dafay ko xam ne da day xaw a complet daal waaw bu fekkoon ne ma sa ko waxee noonu nun nag li koy firndeel mooy diine li la war ne diine taxul woon a jóg man mii di wax yow ni communication laa la wax ne ci laa am maîtrise mais man dem Arabie Saoudite jàngi diine yóbbu moon Arabie Saoudite soixante-dix-neuf laa fa dem def naa fa onze ans li ma doon jàng ci diine ci Tuubaa gii laa ko jàngi ak xam-xam ba doy sëkk nga xam ne dégg na arab lu ma neex mën naa koo jàngal sama bopp léegi jàng naa diine fii ak alxuraan fii ci Tuubaa ba noppi ba nekk magum jëm soo ko aventure yu jaar ci àll bi di dem di dem ba yóbbu ba ma demee foofu nag man diine yóbbu moon Arabie Saoudite man science de la communication la doon jàngi tey jii muy ministère ba muy sës ci muy organe bu ma loolu mën a doon ku ko mën a jiiti Sénégal bu ma la ko jàngalul doo ko mën a jàngal bu ma la ko jàngalul doo ma ko jàngal bien que rek wax ji yittewoo ko taxu maa jóg pour préciser rek waaw ndax tey jii nit njëriñ la si boo mënoon tey jii nag ab poste am ministère nga mën la déedéet man leneen samay xalaat laay yor samay xalaat laay mën a jëfandikoo samay xalaat lay mën a participer. waaw di génne xalaat teg mais jëmmi yooyu bul defee ni li may wax ni déedéet waaw mën naa ma am xalaat nag yoo xam ni lépp day jëm ci luy jëmale Sénégal kanam waaw loolu ay conseillers doon ak yeneen ak yeneen waaye nag bokkut ni li may wax ni yëg lu déedéet taxul mu wax ndax bu doon loolu kon nag ni tàmbali naa dugg ci yoon yi xam naa yoon yi bu yàgg jar naa ci waaw kon li ma wax foofu rek mooy ba may jàngi man diine taxu woon ma dem Arabie te loolu waxoon ko ci Abidjan ba may aventurier bañ ma laaj ni ma lu tax ngeen bàyyi man leen damaa jàngale ma war a jàng ba noppi leneen nag moo tax di dem mu boobu science de la communication amul fii université bu ko jàngale fi arab ma dem Arabie Saoudite jàng am sama bac am mention boo ma am dugg ca faculté boo ma nekk université bu gën a moderne ma jàng fa communication ay américain di ma jàngal ay anglais di ma jàngal ay di ma jàngal ci biir université ci ñooñu laa ko jàngee ñeneen itam noonu lañ def Égypte ñii def ko Tunisie ñii def ko Maroc mënumaa lim ñëpp donc yéen li ngeen yaakaar mooy ku jàng arab bu ñëw rek li ma la wax ci jàkka ji la war a jëm déedéet loolu il faut ngeen génne seen bopp waaw maanaam ni ngeen nawee tubaab bi wala ngeen nawee occidentaux yi xam-xam bu ko raw moo nekk ci réew arab yi réew arab yi ban làkk la ñuy utiliser fi ndool ni bu doxal seen réew langue arab la ñuy def Égypte ñaata ñaata lañ def ci ay ñaata lañ def ci ay kiimaan ci wàllu industrie ak wàllu leneen ak leneen Tunisie gii rek Maroc gii rek ci arab la ñuy ci la ñuy doxal seenum réew loolu nag yéen ngeen mën a comprendre bëgg koo jaawale ak diine bien que diine moom da ngay arab da ko dafa arab diine lislaam ala kulli xel waaye nag mënees na ci jànge loo xam ne du jot rek loolu dara nooy balu ñëpp ak di baal jëpp ak incha allah balaa yàgg rek bu soobee yàlla kon mi ngi noonu daal jëf jërë ngeen jëf soxna si kon ñu dégg ko noonu rek incha allah incha allah incha allah incha allah incha allah alhamdulillahi alkarimi silmilan alastighali bi furudin wa sunan sakartuhu lianna qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani wa hadani